neen la sunu njaboot la mm-hmm. lépp xewe dafay jaar ñu jóg sol suñu dàll ginnaaw buñ ko defee ci ñoom ña nga xamante ni bi ñoom la dal mm-hmm. la leen dal ñu bokk kook ñoom liñ ciy jublu jubluwaay bi mooy fexe ba sunu borom delloosiwaat jàmm ndax njaboot goo xam ni genn lan. am nga nekkoon kon. falaa nekk falaa nekkoon bien sûr njaboot goo xam ni genn lan. Euh, ñoom ci seen yaram nan la ñi nga xam ne ñoo amay gaañu gaañu lan la ñu euh, lu ñu sentir seen yaram est-ce que ñu ngi yëg euh, tane. waaw mboolem ñi ci am gaañu gaañu day kilifa yi jël nañ ci dispositif yi ñu waroon jël mooy ñoom ñëpp ñu ngi ci hôpital ñu di leen di leen di leen faj. di mhm. leen toppatoo jël leen en charge. Mhm. lépp loo xamante ni bi mooy li seen digganteeg ak nga xam ne ñooy seen ay kilifa. d'accord te loolu seede lañ ci ndax dem nañ fa ginnaaw bu nga xamante ni bi ni suñu bët moo nu may. Mhm. gis ña fa nekk ñëpp ñu jël leen en charge. ñu ci a ngi leen li nga wax 18 personnes ñoo si am ay gaañu gaañu ñaata lañu au total. waaw 18 personnes yi moom xëy na mën nañoo wax ni ëpp na ko ñi gaañu. waaw ñi ko parce que loolu ci premier jour. wala yan yan xeetu blessure la ñu am. waaw blessure yi moom yi ci ëpp léeg-léeg ay xaañu xaañu la ak ay lakk-lakk yi ci gën a metti ay lakk-lakk la. Mhm. ndax lakk-lakk dafa nekk lu nga xamante ni bi nii dafa naqaree faj te day day day gaawa a sonal nit ki. ok am na ñuy wax ne euh, dañ leen sotti acide am ñuy wax ne dañ leen sotti essence ñi di wax ne dañ leen dugal ci ay euh, nu nu mu demee. xam nga li nu fi indi. du wax lan leen def. d'accord mais dinañ ñëwaat dinañ ñëw sax dinañ ñëw si napp gi ak nu mu demee yëpp mais dama dañu bëgg a parce que ñu ngi ah, ah, la moo ma laaj loolu mooy si média yi ngi dégg lu nekk ñu a sotti ay acide ñu naan dañu leen a dañu leen a taal dañoo bëgg xam nu mu demee véritablement comme yaa nga li am solo man mi fa nekk damaa nekk seen sama samay seen kilifa ñu nekk samay njaboot d'accord lan def ak lan leen def ñan def ak ña defee lan defee loolu amul solo. donc bu si wax. amul solo li am solo état Sénégal est-ce que jàppoo ni jàmmaarloo am na diggante nappkat yi est-ce que jàppoo ni moom moom moo seetaan ba liy am. gisuma ci jàmmaarloo gisuma ci jàppant ci état wu Sénégal. ah mais mu am ay ñoo xam ne dañu am ay gaañu gaañu ñoo xam ñu ñu ñu ñu ñu ñu lakk leen nga ne gisoo si jàmmaarloo loolu. jàmmaarloo ay affrontement dama ne question bi nga may posé mu leer. jàmmaarloo ci ñan ci état wu Sénégal. cest Euh, napp biir nappkat yi ñoom seen biir. moo ñu dëkk Kayaar euh, ñu dëkk Mboro ak waa Géej Ndar. am na ay jàmmaarloo seen biir. waaw loolu am na réeroo. am na ci voilà réeroo. kon kon nan nga ko tuddee. réeroo kon est-ce que jàppoo ne réeroo boobu su amee est-ce que nekkul état Sénégal moo seetaan. waaw xam nga état Sénégal moom lu man di xew. ñaari doomu réew mi ak ñu nekk ci ñu nekk ci réew mi te doon doonte sax doonuñu doomu réew mi te ne ci réew mi. Mhm. lépp lu fi xew. ci état wu Sénégal lañ koy teg ndax ñoom ñooy responsable ñooy kilifa yi ñëpp. Mhm. ku jaboote moom lu xew sa kër. Mhm. yow yaay kilifa waaye ñun ñi taxaw di wax. Mhm. li tax ñuy wax mooy. ñoo ñu ngay wax ñëpp diggante jarbaat ak ak ak ndijaay ak mag ci benn kër. su fa mbir xewee jàpp naa ni jaaduwul. ca kenn ci ñi nga xamante ni ñoo ne ca kër ga. di wax ni diw mii moo ma def lii wala diw moo ma def lee ndax ñoom ñëpp benn lan. mu ne su ko tuddee neen lu dul réeroo ak seytaane